puis de changement bi nga xam ne ni population bi euh, euh, wane nañ ko ci changement wu régime bi loolu moo ñu war a may ñun ñi fit euh, murit nag ku ko wax fulla ak fayda ak fit moo ko moo moo moo ko moo ko moo ko caractérisé su ngeen xoolee sëñ sëñ Touba bi muy tabax Touba su amul woon fit amul woon communauté bi amul woon pas-pas tey jii Touba du nekk fi mu toll donc ñoo ngi lancé aussi un appel à toute la communauté mouride surtout les hommes d'affaires mourides venez travailler avec le gouvernement suñu gouvernement suñu dëkk bi mi ngi importer mille soixante dix milliards en denrées alimentaires contre un budget de sept mille quarante deux milliards. donc maa ngi lancer un appel à la communauté mouride à la communauté Baye Fall ñu ñëw liggéey ensemble en en tout cas le ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ubbi na seen ubbi na ubbi na ay lo ubbi na ay ay buntam pour ñu ñëw liggéey.